Pam Ndiaye. man maa juddee mi quinze yi fii. Euh, waaw waaye tey dama dama la korwaan pour jàppale président de la république jàppale sëñ Cheikh Abdou Bali Mbacké waaw pour li waaw pour liste pour ñu wate liste Benno Bokk Yaakaar bi te trente soob yàlla foo bëgg uri yëpp woo naa leen la artisanal mécanicien électricien tôlier organisateur peinturekat lépp comme la artisanal rek woo naa leen ci biir le trente pour jàppale président de la république nga fas yéene jàppale yéen mécanicien waaw ah, ñun ñu ko fas yéene jàppale mécanicien yëpp dañuy ànd maa ngi ko lépp loo xam day liggéey ci oto wàllu automobile rek bis bee ñoom dañu ñëw jàppale ma ñu mobiliser comme ñu def mobilisation bi ana ñoom dem war jël li suñu bokk yaakaar bu soobee yàlla am ci ndam bu soobee yàlla waaw ah, la dinaa de Sénégal région Diourbel Sénégal ñëpp woo naa leen li tax ma taamu karawaan bi mooy comme sama bokk uuri comme ñoo bokk wàllu automobile waaw loolu moo tax moo leen di woo ci oto laa leen di woo waaw loolu moo tax taamu karawaan ñoom ñoom maa wuyu si. ah ngeen daje Touba xaw a jafe loolu ci yéen am ngeen ay stratégie pour élection yi ngeen renversé. non bu soobee yàlla élection yi du gagné du jafe dañuy dañuy gagné dañuy gagné yëpp woo naa leen léegi ñëpp ànd nañu pour jàppale président de la République réalisation yi mu def ci dëkk bi ak li mu def ci Sénégal waaw moo tax fi toll nii gagné moom dootu jafe ndax ñoom ñëpp suñu xel dal na ci bu baax a baax a ñoom ñëpp dañ ñëw woo naa leen sama mbokk artisanal yëpp waaw yu woo naa leen te dañ ma wuy si incha allah ci bari ci ñàkk yar rek la nit lu ne war na ko mën a def yar ak teggin waaw ndax président de la bi li mu am lépp yar ak teggin moo ko may ñi nga ànd ak moom yëpp yar ak teggin waaw loolu moo tax loolu kon bu ñu xoolee ci moom rek violence war naa mën a ñàkk ñu jël seen carte d'identité ku dem jëli na nga jot bu soobee yàlla waaw ñu ko dem da nga jël sa